Heavy Mess.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 moom daal nee ñu patron bi def ko liggéey loolu toll ci fukki fan ak juróom fayu ko xaalisam nappkat bi topp ko topp ko ba sonn patron bi di xiini xaana saa bu fa demee mu lakk ko daada naka noonu ci la nappkat bi décidé dal di venger di lal plan xaar ba guddi mu tëb ci kër patron bi fekk fa am xaram bu mu fa takkoon nekkoon joñet yóbbu waaye nag nappkat bi dalu ci dee ndax ci guddi gi mu sàkkee xar mi di ko yóbbu dafa dajeeg brigade territorial bu Mboro fekk booba ñu ngi def patrouille nappkat bi bi ñu ko laajee fooy yóbbu xar mi ci heure bi moom it mu nekk fa di lakk daada ci la ko gaa yi tegee loxo dal di yóbbu ba ñu ko yóbboo ba l'enquête ko nag ci la nappkat bi ne xar mi kër patron la ko sàccee ndax da koo liggéeyloo ba sonn fayu ko mu laaj ko xaalisam ba sonn fayu ko ci la lalee plan tëb këram guddi daal di sàcc xar mi kon nag waroon nga continuer laaj sa xaalis rek fi mu ne mu ngi ci loxo yoon may laaj ñoom stas góoro nag bii xeetu sàcc moom bu rawoon est-ce que daganul moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca kaw la romb na doy war ab xale bu demoon ci soirée dansante daal lañu ba mu jaare fa ñàkk bakkanam musiba naaru lay xale bi mu ngi woo ci turu seenjaay am ñaar fukki at di ab élève en classe de terminale xoolal ma lii rek moom daal guddi samedi jëm dimanche bi weesu ci ab soirée dansante bu ñu organisé woon ca foyer des jeunes bu Médina Sabax lañu ko jàmpaaka mu jaare fa ñàkk bakkanam ki ñu tuumal ne moo def njombe loolu nag yoon teg na ko loxo ak ñu bari ñu nekkoon ci soirée bi fi mu ne gendarmerie ubbi na ci ab lanket moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca ndar géej doy na war ab soxna daal moo fa jëloon ab doomam bu jigéen bu am fukki at ak ñaar dénk ko ab ñeesam fekk booba mu ngi dem ci ab cérémonie religieuse ñees bu mu dénkoon doomam boobu mu ngi wuyoo ci turu MN Sow waaye ñees bi li mu def doomam ji moo doy war ndax dafa jëloon xale bu ndaw boobu am fukki at ak ñaar ko booleek ay góor ñu ku jaar ba noppi jox ko téeméer hmm, mbete faatu yombule ndaw si nag li ko daane mooy xale bi dañ ko yóbbu ci ab gynécologue bi ko gynécologue bi cayto gis ne xale bi yàq nañ ko yaxeet bi ñu laajee xale bi ci la ne MN Sow moo ko doon booleek ay góor ñu koy tëddee ëpp law ma ne nee ñu boole na ko ak lu toll ci juróom ñaari góor mbete liste aji saar ba abe cuun jaar na kaa cuun jaar na co jaara jaar na na SM Ndiaye jaar na M Ndiaye jaar na S sàmm mi tëj li sibit jaar na <laughs> ma ne mbéte li sa aji saar ba ndaw si def njombali nag bi ñu ko laajee da doon jéem a weddi waaye M Ndiaye ak sewo jaara bi nga xam ne nii ndaw si boole na leen ak xale bu jigéen bi ñu jaar ba jàll fay téeméer ñoo gën a enfoncé ndaw si bi ñu laajee xale bu jigéen bi tamit mu gën koo dugal ci biir <laughs> moo tax ma seet leen ñeen di jox seeni ay doom ngay jël sa doom yóbbu fenn ñu jël ko def ko yu ni mel moo tax léegi àdduna bi dara wóorul doom daal ci wetu way juram mu dooroon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz